Ils sont là. Les Sénégalaises. Et toute l'équipe d'Alum Cissé dans le bus, sur le toit. ils sont là. Hop, oh, hop, hop, hop, ñii moom ñi xam naa dañoo lu yàgg pour gis moo tax ñi ngi joxe lu ñu Oh. Wow. Wow. لا إله ليب ليب lii yëpp pour gaynde yi c'est pas possible incroyable non ñii ñoo bëgg Sénégal ñii ñoo bëgg seeni gaynde ñii ñoo mën delloo njukkal oh pop pop pop pop pop affaire bi oh la la la la ñi kenn fu ñu jógee ñeen xamul fu ñu jógee man dama jàppoon ni mbir yi jeex na sax waaye fii la gën a tare hop hop hop hop romb nañu passerelu balaa ngay àgg Mermoz wetu Sonatel bi hop hop hop hop hop xoolal passerelle yëpp a fees gauche droite àdduna yi nit a ngi nii hop hop hop hop Sénégal yàkkamti woon na gis gaynde bi oh Paula Ndaw xoolal nuñ leen di toppee xoolal nu ñuy toppee biis bi xoolal lii pop pop pop pop pop pop pop pop xoolal xoolal Abdou Abdou Abdou na coupe bi Abdou Diallo na coupe bi Papa Laye oh pop Tut, tut, tut, tut, tut.